ibrahim wool ma sa soxna si ibrahim daal di dem ba ci saara ni ko wuyul buur bi waaye nag ni ko àndal sa ngëm yàlla àndal sa imaan àndal ak yàlla goo xamante ni bii lu dul yàlla ku la ci woo bu ko wuyu buur ba nag bim ñëwee ci soxna soosu di saara am ñu ko xam ci saarata waaye histoire lim gën kii mooy sarra soxna soosu di sarra nag bi nga Ibrahim woo ne wuyul moom dafa ñaan sunu borom ni ko képp ku nar ak ndëngate wala ak njubadi ci man yàlla bu agsi ci bu loxoom laal bu ak loram lor Sara bi jege buur ba buur wa ndekete xelam daga da nek ci soxna si di sarra bi mu ñëwee di juk ci seesam ba ñew bu ko saku bi mu demee ba juk ko rek loxo bi dafa de yaram bi yep de mu taxaw ben place mu daal ni ko ñaanaatal sa borom bi bi nga ñaan ni ko bu la nit lor sama cër yi delluwaat mu ñaanaatal ko sunu borom cër ya delluwaat buur ba delluwaat ci ni day defaat ñaawteef bi mu bëgg a def ci moom mu ne da koy sàkkuwaat bi mu demee ba jubaat ko ñaareelu yoon it sunu borom dogal la muy dogal muy cëri buur ba yëpp dee buur ba daal di koy waxaat ne ko ñaanal sa boroom mu teggilaat ma lii bu ma teggilee lii sama loxo du jëmaat ci mu ñaanaat moom Saara soxna sa di Saara ñaanaat buur ba cëram ya delluwaat ñetteelu yoon bi tamit cëram ya nekkaat na mu nekkewaat muy wér ak na mu war a nekkee buur ba doylut daa delluwaat ca bëgg a defaat ñaawteef boobu muy jëlaat loxoom ba ni da koy jéem a sàkku moom soxna Saara di soxna si Ibrahim yaram ba daa di deewaat comme na mu meloon. mu daal ko bii nag ci laa yem boo ma ñaanalee sama boroom sa boroom ba mu dindil ma lii sama loxo du ma du tegewaat ci yow te dinaa la defal ay teraanga soxna si ñaanaat sunu borom sunu boroom teggilaat loolu buur ba cëram ya delluwaat ca nam dellu woon buur ba daa di koy may ab jaam defal ko ay teraanga daan génn leen dëkk bi nag dem ci beneen dëkk ci la. Ibrahim jugee ca dëkk boobu dem ci beneen dëkk ànd ak kii di soxnaam di Saara ak soxnaam sii di Hajar ndax kii ñi ko may muy jàmb booba Hajar nekkagul ab jaamam la waaye vii que ni Ibrahim booba dund lu yàgg amut tuut tànk muy amut doom saara di soxnaam soosu daal di koy jël jël jaamam boobu di hajar jox ko ko ni ko amaana de boo jëlee soxna si nga xam ni gone la te man mii nga xam ni mag laa njoot naa ne mënatuma am doom boo jëlee xale bi yàlla mën la cee defal sutura ndax say ñaan li ci gën a mooy sunu borom yàlla nag ma may doom ju xam ne day bokk ci wayu baax yi loolu Ibrahim ñaan na ko sunu borom ba tàyyi looloo tax soxnaam soosu di Saara jël jaamam boobu ko buur boobu mayoon muy Haajar may ko borom këram boobu di Ibrahim Ibrahim nag yàlla dogal mu am ci tuut tànk muy doom ju ñuy tuddee Ismaayil nag Ismaayil moom doomu Ibrahim la te ku siiw la ndax sunu boroom indi na ko ci alxuraan banaan waskur fi kitaabi Ismaayil innahu kaana saadiqal waad bokkoon na ci ñi nga xamante ne bi duñu mooy lii dénkaan wala duñu dañoo nekkoon ñu dafa nekkoon ku respecte rendez-vous moom Ismaïl Ismaïl moom nag doomu Ibrahim la ak Hajar loolu nag bi mu amee ci diggante Ibrahim ak Hajar ak Saara nee nañu bi loolu amee rek bi Saara Hajar amee doom dafa am lu commencé xew ci kër gi muy saarata dafa gis ni jaamam boobu di xëjat dafa commencé rëy rëylu ci kawam aka am yenn jikko yi jigéen di am rek ka ni buñ amee lenn lu keneen amul faaw ñu wan ko ko bi loolu commencé am nag ci la saara ñaan boroom këram bii di xëjar mu jëlee ko fa ni ko maa ngi lay ñaan man metit yi ma ndaw sii di teg gone gi nga xam ne sama jaam la woon mënatuma koo dékku maanaam ak fiiraange dugg na ko ci loolu mu ne ko maa ngi lay ñaan nga jële ndaw sii fii yóbbu ko ci beneen xur walla beneen dëkk ndax fi mu ne nii mënatuma dékku Ibrahim tamit gis na fi jaar ak sara muy sarata ci nu gëna siwé ci ñenn ñi gis na seen jaar jaar ci la daadi nangul ko loolu ni ko na ko jëlé fi yobbu ko ci benen dëkk ngeen soré mo yobbu ko feneen yow nga nekk fi nangul ko loolu ci la ibrahim alayhi salam jëlé ki di hajar mu andak doomam jooju mu yóbbu ko ba ci benn dëkk bu ñuy wax faaraan faaraan nag guddi yi jamono yi mooy màkk waaye jamono jooju faaraan la tudd ci ni ko kutubu taarix yi indee bu mu demee nag lim ko jox lenn képp la muy benn mbuus mu def ndox ak benn mbuus mu def ñam bim paree nag daa tournée di leen fa bàyyi ci la ko Ibrahim ci la ko soxna sii di Hajar di wax naan ko ndax dag ñu fi bàyyi ñun kese ndax di nga ñëwaat Ibrahim ni ko toogal dinaa ñëwaat Ibrahim nag bi mu demee ci la maam ci la soxna sii di Hajar toog di utiliser ndox mañ ko jox ak ñam wa ba mu jeex ci la soxna sii di Haajar toog nag lu yàgg gisul boroom këram bi mar wu metti dal ko dal njabootam gi maanaam doomam jooju mu yoroon di Ismaayil ba mu commencé di wequ di wequ di wequ jaaxle dikkal ko ci lay daw ndax boobu fiñ ko wàcce moom képp fa nekk bu dawee am na ñaari montagne yu fa ne montagne yooyu nag moo tudd mooy fi mu ne Safa ak Marwa ki lay daw ba ci benn montagne ngir xool ba xam dana am ñeneen ñu war a ñëw ci dëkk bi jugee côté bee ndax ñaari montagne yooyu ñoo fa gënoon mag bu dawee ba ci benn montagne mu taxaw di xool ba xam am ñu ñëw bu taxawee foofu lu yàgg du ko gis kenn mu dawaa dem ci beneen montagne ndax boobu mar wi sonal na ko sonal doom doomam mu bëgg lu leen mayee ndox mu nekk ci diggante boobu di ko jaabante ba mu nekk juróom-ñaari yoon ba mu nekk juróom-ñaari yoon looloo waral safaatu ak marwa di am ci ku aji màkk loolu mu ngi jugee ci xissatu Haajar moomu ba ko borom këram boobu bàyyee foofu Haajar it fa la nekk fa la nekk ba sunu